arbitre bi ngi waaj a sifflé ndaysaan arbitre bi na toos bu Siteu waaw moom moo la wan ginnaaw Dame Ndiaye nga lool Dame Ndiaye ay eh, cokkaas la doomu Serigne Ndiaye la bu faas suñu papa ku baax ku bëgg nit ku yaatu Dame Ndiaye eh doomi mbër yàgg yàgg des na la mën a toos bu Siteu tons su Siteu wala tons bu Siteu <laughs> ndeysaan xale yi tur bu la ñuy joxe Dame Ndiaye tons bu Siteu ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu cokkaas na daam Ndiaye tons bu Siteu ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu Dame Ndiaye tons bu Siteu daam cokkaasaan na daam nag ni muy cokkaasee garde bi baaxul de déedéet Tonsu am na nu mu koy aspiré rek mën naa dugg ci biir garde daam Ndiaye bi ndaysaan Dame Ndiaye Tonsu bu Siteu ñoom ñaar a ngi noonu ci digg géew bi Dame Ndiaye Tonsu bu Siteu ndaysaan Dame Ndiaye Tonsu bu Siteu bay bala noo gisee ñaari xale yi Dame Ndiaye Tonsu bu Siteu Dame Ndiaye tons bu Siteu. tons bu Siteu. waaw Dame Ndiaye moo la woon ginnaaw doomu la. man Serigne Ndiaye men. mu mag mi. waaw kooku dafa dafa doon lu bëri moom la Serigne Ndiaye indi numéro indi. ki ko indi. ndaanaan la ci làmb barki dem gis nga ni mu def fii ci Sadio Iba Mar Diop. ah xale la boo xamante ni dafa doon lu bëri. Faas laa jógee rek day na mbër. ndeysaan ñaari xale yi ñu ngi léewtoo. Siteu moom nga jàkkaar lool moom Siteu moom la ñu jàkkaar lool. xale yi léegi bëri nañ ay Siteu de bu Siteu Siteu bu Ngor ah kan ak am na am na beneen Siteu de. Siteu est-ce que ëppul turandoo ci làmb. ah moo ëpp turandoo ci làmb Siteu. waaw ak caatu Siteu ak lu dëgg. isaan ay caatu xoolal mais mais booy booy mais eh, booy garaaw na de. waaw bo eh. booy toos bu Siteu mi dafa doy waar de booy bi dafa am fi dee. waaye yow bi eh. wala déet bi xanaa dafa def yow. laay laay la la daan na ko de. laay laay la la. waaye di nga xeeb xal mu lakk sab daay. waaye di nga xeeb fett mu lakk sab daay xool ko. Eh, toos mii. toos mii. ndijaay mii. ndijaay mu sita mii. papa léegi doy na waar do eh, gis nga du papa. non kii papa la. nee eh, papa la toos mu sita papa la. toos mu sita papa la léegi. papa la waaw waaw. amoon nañu ne daan nañu ne